xolu jullit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj réew mi tey lore te nit ñi gisuñu ko walla boog mel nañ ne ñu ko yëgul nga yëg ko mu itteel la ba nga yëkkati ko nii ñaareel bi courage bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yàqu-yàqu bu rëy la ni ñu ko daan waxee rek communauté islamique dafa doon lu sell ñoom rek ba muy ñoom rek kenn raxu lu ci bokkul dugg ci yëpp dañ koo xamul woon ba ci réew mi nu nekk sax ba fi tubaab bi notagul ba indi fi ay aada yoo xam ne seen aaday bopp ñoom seen bopp la fële jëlee naa ne góor daawul jox loxo jigéen jigéen jox lu ko góor waaye jigéen ak jigéen sax daawuñu joxante loxo ndax loolu sax lislaam santaane wu ko jigéen ak jigéen sax ñu joxante loxo lislaam santaane wu ko rawatina nag jigéen ak góor xam na ne góor bi fekk jigéen toog mu njëkk koo tàllal loxoom ku yàqu la ku feebar la ku mat a yar la feebaru xol bi ma doon wax am na si ñoo xam ne sax ñi ngi koy def xamuñu ne aay na ndax dañoo gis mu maa mu daj adduna yi ñépp ànd bon moom bu dajoon adduna bépp du tax mu baax du tax saxit mbonaay ga wàññiku déedéet day gën a bon rek ndax ni mu gën a nekkee aada ba koo xam ne bu newul woon aada moom dana ci génn dootu ci mën a génn ndax li muy aada ndax benn tënk bi nga wax ki ñëw fekk la ci mbooloo ngay jigéen bu sànni diineem fële sànni jomam fële sànni faydaam fële sànni fullaam fële te fullaak fayda mooy li nga xam ne mooy sa diine di sa aada aaday keneen ak melaw keneen tax nga fab ko sànni ndax woyofal sa bopp xeeb sa bopp ak di ko di ko roy ba di ko roy ci la gën a bon waxoon naa ko fi keroog ba cité Molière fi muy waxee naan quand sur quelqu'un on prétend se régler c'est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler boo dee roy nit seetal li gën ci moom waaye di ko roy naan na damay ñandoo ni muy ñandoo di xaxtandikoo ni muy xaxtandikoo ndofa ngoog bu ñu muccatu la royit kay ndax lislaam ku ci nekk amatoo looy roy feneen ndax li baax lépp ci la nekk te lépp lu bon sori na ko te lu baax lenn génn ko kon amula leneen looy jiggi feneen waaye nag boo muccatul bay royit nga roy bokk la ca baax xëy na sax yaa ko gisul woon ci lislaam sax xam-xama ci àggul wala kenn lu la ko leerul waaye la ngay roy fee ko mu baax lislaam a ci jiitu lam koy defee la cay dikk gën nam la ko santee gën ci ngay gën a mate ci lañ lay gën a ñuy xam ne nit ku xam boppam nga kon ku ku yëg boppam nga koo xam ne kii xam na la mu doon te xam na ne li mu doon a gën la keneen doon mu jàpp li mu am fulle ak fayda yi jàpp li mu doon te bañ ko foye kooku nga xam ne dafa ñëw muy góor fekk jigéen ji toog mu ne ko jëb loxoom def na jëf ju ñaaw xanaa xamuñ ne malayka yaraw cinéaste yi te dañ lay filmé moo raw caméra bii xef bët sax ndegam caméra bi koy jàpp ah si malaaka te waxtu wooy dee film boobu bépp day jaaraat ci sa kanam bi nga tolloo ci sukuraat góor ak jigéen ñi joxante loxo nee ñu loxo ba dagg ca war dagg ca gën sa loxo buy dugg safara la nag loolu lu ma ta la réew mi nag am na ci sax ñoo xam ne ñu ngi def yu dul noonu waaye boo ko seetee tooy ñu kenn kenn leen waxul kenn leen waxul dara dara dara dara te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na di baax di tere lu bon wala danaa fab ñu yées ci yéen teg leen ci seen kaw ñu di leen def la gën a bon te ñi gën ci yéen buñ tàllalee yàlla ñaan seen buñ tàllalee seen loxo yàlla ñaan ñu dindi ko du ma leen faale lislaam li koy téye mooy digle ak tere ak xamle rek bu dañee jeex na nit ñi sëgg ak siggi rek te du dara yàlla soxlawul nit koy bank ci dama tàllal ak sëgg ak déedéet la ca biir la soxla te mooy xol bi góor ak jigéen ñi joxante loxo na ki nga xam ne nag moo njëkk a tàllal loxoom bu musiba dee fukk juróom-ñeent yépp moo koy gàddu ki am kersa ba ba tax mënu koo bàyyi yi mooy mu joxe loxoom benn ba lay jël waaye ki njëkk a taal loxoom muy ku góor ki muy ku jigéen ki muy ku jigéen ki fekk ku góor ki mu jox ko loxo ku góor ki fekk ku jigéen ki ku jigéen ki fekk ku loxo ku góor mu jox moom mu njëkkee mooy jël fukki musiba yi fukki balaa yi fukki bàkkaar yi fukki mbugal yi fukki naqar yi yemal xiyaam ka la jël benn ba waaye ñoom ñaan yëpp kon wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa kon kenn ku nekk na def ci boppam ne bu demee ba di ko def it ne ko leer na rek mu ngi def lu bon mu ngi lor boppam rek defee loolu ci boppam danga xam ne def na lu xaraam ndax mooy ba mooy jeex di nit ki def ka di ko daganal mooy ci yées ndax bu beedee benn bàkkaar moom ñaari bàkkaar la ndax daganal gi nga koy daganal te boo ko defee kat ba ñeneen toppandoo la ci ñela ca toppandoo yi ñëpp itam bu buñ ci am da ko ba nga ci am bu toll noonu boole ko sa lu ñu bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amila biha ila yawmil qiyamati wa kadhalika man amila man ah, sanna sunnatan sayyi'atan képp ku xotti yoon wu baax da nga am sa tuyaaba am tuyaaba képp ku jaar ca yoon woowalee ba ba saa di taxaw naka noonu képp ku xotti yoonu mbon njëkki ko ñu roy la ca da nga am sa bakkaar ak bakkaaru képp ku jëf loola le du wàññi bàkkaaru kooku kat waaye dañuy lay tegal bàkkaar bu toll ne booba ñëw yokkal la ko ci ba mu mag bañ ñu koy jëfee jeex ba ba yomal xiyaam kon nag jullit ñi seen warugar la nii leen def laajte li leen di jëriñ ak li leen di lor ndax diine dara yoru ko dul loolu laaj loolu nag yomal xiyaam suñ mboom du mbugal ci ñi xamul ba ba te mu laajee ñi xam ndax nangu woon nañoo xam ne wala déet bu nangu woon xam ne nag ñi xamul ñu soog leen a laaj nag bu ñu jëful ñu mbugal leen bu ñu jëfee ñu xam ne jëfee nañ lañ xam nag kenn ku nekk xam nga ne bi may wax waqra'a dal